wax naa la ni mbooloo ñaari dafa leen a yitteel wax naa benn ba pare mooy lu jëm ci wàllu découpage bi mais beneen bi encore te yéen ñi ñuy seetaan mooy euh, sama baaraam bi gis ngeen loolu di affiché noonu boo ngeen ko seetaanee di ngeen gis ni ki nga xam ne mooy Asma Liggéey nekk la coordonnateur de de du mouvement aquatique dégage ñëw na recevoir nañ ko waxtaan nañ ak moom nee na maire bi bi mu fi toogee ak léegi defagul dara ci ndox mi te yaakaar naa ci campagne muy yow ainsi sa naataango yëpp.

Euh, le conseil municipal. Mhm. réunion bi passé mhm. nous avons débloqué 40 millions pour def ko ci 40 millions bi mu suivre son cours pour ñu mëna xol ni xaliss bi mëna a mais xaliss buy trésor aussi dafa am ay pièces justificatives yo xamanté ñoo de and. Mhm. ba ñu ñëwé waxtaan ak ñom, laaj leen lan moy seen soxla dañ ñoo wax né tay problème de pompe la pompe yoy il faut ñu jox ñu spécificité wu les yi mom lañuy xaar ci ñom jox ko le secrétaire municipal li ci peut-être c'est des tuyaux pour l'extension il y a aucun problème c'est acquis pas plus tard qu'hier heure bi demb ñu ngi sama bureau le 15 juin 2023 nous wa Aquatec Dégage ñu ngi sama bureau parce que dañu am ay problèmes actuellement am problème pompe un problème d'électricité. Quand nous présenter la facture, ça se chiffre autour de 5 millions. Mais demain, ces 5 mhm. millions-là, nous les 7. Au plus tard, à la fin du mois, on le règle. Nous avons ah, mais Donc, pour régler le problème mhm. de façon définitive, c'est un problème qui est très important. faut que tu te Donc, vous avez approuvé le combat aquatique dégage Du approuver, approuvé, ce que je fait, la population est là. Ce population bi la koy defal man xoluma Aquatech dégage moo fi né wala Aquatech man lima soxla moy sama population am nañu problème ndox na régler ce problème maintenant mhm. que Aquatech dégage dafiy jógee dañ fiy teg ben comité bu légal bo xamante ni mo wara nek mhm. sur place mhm. loolu c'est avec le sous-préfet ñoo ngi ci té loolu du yag peut-être ñu def ko parce que nak quoi qu'on dise Aquatech dégage dañoo jafandi dañoo jàffandi ni rek mais ñom ci sen bop xam nañu ni ñom ñoo fi war a seen nekk fi du legal pour que mu legal dañoo war a mun a woo tous les délégués de quartier woo tous les ASC woo ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu euh, ci niveau développement au niveau de Mboro ñu ne dañoo war a defar benn comité bu taxaw boo xamante ne saytu ndox mi suñu ko defee képp ku ñu jiital ñu ne kii mooy président bi lii mooy bureau bi mhm. lépp lu ñuy def ñu koy teg ci seen i loxo ñu xam ne lii la ñuy teg en attendant mhm. que l' état du Sénégal règle son problème mhm. avec Aquatec ba ñu xam nan la ñuy gérer seen mbirum ndox. voilà justement entre état ak Aquatec fan yi ci ginnaaw wax nañu ni état dafa bëgg a jëlaat par force forage bi nangu ko ci mouvement bi andiwaat ko joxaat waa Aquatec yi nga xam si ñoom la fi waa Mboro dàqe ndax cooneem la doon teg tey sa taxawaay ci lan la a doon. monsieur état mooy gérer ndox état. moom mooy gérer ndox. kon yow da ngay bàyyi mu nanguwaat man aw lu ma ciy def man man hmm. aw ma lu may wax c'est-à-dire. mais di nga jël position kam xanaa. loolu laa lay bëgg a dire état bu ñëwee ne man maay gere sama ndox. Hmm. ñun tam daañu ne dëgg la yaay gérer sam ndox waaye ñun ñooy waa mbooro ñun ñooy fay ndox ma su fekkee da ngay gérer sam ndox ñu itam nii mooy suñu gis-gis ci ndox mi nii la ñu koy war a doxale loo fi gis waxtaan la état lu mu am doole am doole ba ko leen it bu ñëwee dina déglu nit ñi suñu dégloo ñu wax xool de part et d'autre lan mooy lii baax loolu la ñuy doxal su boobaa ñu itam ñu indi suñuy nit tey jii ndox mi mhm. Aquatech mu ngi koy doxal tey ba Ndiaye waaye dañoo imposer seen seen seen comité boo xam ne dafa taxaw di saytu mbir mi di rendre compte mhm. ñun bu en tout cas ku état mun indi fii mhm. la Mboro soxla mooy nañu am ndox mu doy ndox mu sell waaye itam ndox moo xamante ni seerut nit ñi daañ ci mën a accéder ñun daal loolu mooy suñu ñetti point yoo xamante ni képp ku fi war a mën a indi ñun pare nañu pour waxtaan ak yow pour am loolu ci biir Mbour